mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm bu baax a baax seen ay xibaar li nga xamante ni nag moo gën a fës ci li nga xamante ni lekk mooy semaine bi ki leen ko di seen mbokk seen xarit Mintou Ka li nag mooy li gën a fës lekk ci bopp xibaar yi leen ñu dooree ko rek ak li nga xamante ne mooy ay yëngu-yëngu yu méttee métti yi ñu nemmeeku fële ca université bu Thiès ba tax na sax ay ball euh, téere nañ ko rek ci ay étudiants ñaareelu fan intégration bi nga xamante ne waa CIMIS ñoo ko organisé te université Gaston Berger bu Saint-Louis mu wax ni rek euh, ci lu soxal ci 23 juin 2021 euh, lii nag ñoom dañoo fas yéene woon rek Macky Sall daal ni ko daal askan bi soxlaatu ko benn yoon loolee nag ay kàddu. Ousmane Sonko la ñu euh, ko wax ci li nga xamante ne rek mooy xeex wàllum désertification ak euh, sécheresse moom fixé wu na ci ay objectifs am suuf nag euh, fële ca Touba Mbacké ki nga xamante ne mooy chef de village bu Ndangali moom nag yoon da ko teg loxo teg loxo ba tax na sax ay jëriñaale mi ñu wax rek ñu bàyyi ko 327 accidents de la route yoo nga xamante ne enregistré nañ ko ci diggante li nga xamante ne mooy atum 2014 jàpp 2020 fële ca Kaffrine la ñu wax tamit ci wàllum mairie puisque ki nga xamante ni mooy Mame Goudia Sakka moom nag lancé na lekk mouvement te it officialisé na li nga xamante ni mooy fois wàcc jëlee ko fa muy capitaine Touré moom nag àdduna rek jëmale ci mbir moomu leen fële nag ca Mbour sën Dia kii di berger Abouba moom nag dañ koo faat lekk ñu ko faat nag du ñenn ñu dul ay sàcc daal koy faatee li nga xamante ni mooy jaas yi mbokk yi mooy di gën a fës ci bopp xibaar yi ñeen taaxirloo ma ñëw leen di baax baax lekk seen ay xibaar comme ni ma leen ko waxee rek ci bopp xibaar yi sànq nag xibaar yi dañ koy doore ci li nga xamante ne mooy wàllu njàng meek njàngale di lekk étudiant yi nekk fële ci université bu Iba Der Thiam bu nag ñoom nag bi yoon dem nañ lekk ba sës doon lekk ñaawlu lekk seen ay conditions maanaam ñu teg leen lekk ci conditions yu mucc ayib ci talaata ji nag doon nañ lekk amal ay yëngu-yëngu ba génn lekk ba ñu dégg leen fu ne ba tax na demoon nañ lekk taal ay oto ak ay Université Universitaire Thiam activité ñu oto lañ taal ñi ñoo sadik bu nekk fële ca Malick Sy ay xeex yu métti métti am fa ca diggante étudiants ya ak ñi nga xamante ne ñooy takk der yi. ñu desandi ba tey ci mbirum njàng mekk njàngale mi dem fële lekk ca ndar géej muy kuréel gi nga xamante ne. moo ëmb étudiant yi dëkk fii ci Ngaye Mekhe nekk ci université bu Saint-Louis gën koo xam ci simis nag mu nekk benn structure ba nga xamante ne rek day dajale bépp étudiant boo nga xamante ne dafa bàyyeeku fii ci euh, Ngaye Mekhe ak tamit euh, li ko wër ñoom nag seen kuréel googu li ko tax a jóg du leen du lekk recensé bépp doomu Ngaye lekk ak euh, loo nga xamante ne moo jëmale seen wàllu partage wante seen ay waxtaan jëmale ko ci wàllum jàppalante ak it di sos ak di gën a ñoŋal seen ay sant sentiment d'appartenance ñoom si seen biir étudiant yi bàyyeekoo fii ci Ngaye Mékhé ak debet li nga xamante ni noonu noo nekk ci Ngaye ak li ko wër wante it gën a favoriser rek seen ay conditions jëmale ko seen bien social ak ci wàllum matériel la mbokk yi doon naa leen ko wax sànq rek euh, ci euh, bopp xibaar yi lii euh, mu wax rek ci li nga xamante ni moo soxal ci àllarba ji di yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett si weeru weerum juin muy lekk li nga xamante ni ñoo fare ci kujje gi ñoom nag dañoo fas yéene rek amal benn yëngu-yëngu bu am solo rek ngir rek na wax dalal ki nga xamante ni mooy njiitu réewu Sénégal mu daal di jóge lekk ci nguur gi wante Ousmane Sonko moom nga xam ne rek Macky Sall dafa daal di trahir bépp promesse moo nga xamante ne rek waxoon defoon na ko jëmale ko ci nguur gi mu doon janoog taskatu xibaar yi ci àllarba ji ñu weesu mu nag leader Pastef bi wax na rek patriote yi ñoom ñi ngi lancé bépp appel ak sénégalais yi ñu ñëw rek dajaloo ci bisub ñaar fukki fan ñett si weeru juin fële rek nga xamante ne mooy place de la nation ngir lekk ñu daal di jàmm jànkonteeg ak mbir yooyu lee ñu wax euh, ci li nga xamante ne mooy journée internationale li nga xamante ne mooy xeexu wàllu ba désertification ak euh, sécheresse bi nga xamante ne doon nañ ko célébrer ci alxames ji ñu weesu nag loole nag bokkoon na ba tax na ñu doon amal lekk xeex boobule dooree ko ci atum 1992 wante it doon gën a matérialiser euh, seen ay ndaje bo nga xamante ni amaloon nañ ko lekk ci teewaayu président Costa Rica muy Carlos Alvarado ak ci participation participation yeneen njiitu réew yi bokk ci fépp bokk tamit ci gouvernement bi mu nekkoon occasion boo xamante ne Sénégal daal fi xewoon na lañ ba yëkkati fi bépp objectif am bu mu bëggoon ca ndaje moomu lee bu ñu waxee ci loolu ba pare dañuy wax ci wàllum suuf nag fële ca. Touba Mbacké nga xamante ne eh, kii di chef village bu Ndangal yi nag eh, am li nga xamante ne mooy juróom-ñaar fukki at eh, ki nga xamante ne mooy doomam nag dañ ko daan kaso rek ñetti weer waa ki nga xamante ne ñooy tribunal départemental bu Mbacké mu doon janoog taskatu xibaar yi altine jili ay jege ñaaleem nag ñu ngi woote rek ba tax na ñoom nanguwuñu verdict boobu benn yoon wante it ñu ngi woo xalif général kullu murid rek di Sëriñ Muntaxa Mbacké lii moom amatul benn laam-laame muy nga xamante ne mooy euh, Mame Gor Diazaka bi nga xamante ne dafa bëgg a lekk lekk maire Rufisque mu nekkoon nag ci ab teewaayu Matar Ba nekkoon ki nga xamante ne moo ko fa teewaloon di Cheikh Ba wante it euh, waykat yi moom waykatu politicien boobee sax officialise na nga xamante ne mooy euh, candidature am wante it nee na moom mooy nit ki nga xamante ne léegi moom moo mën a jëmale kanam li nga xamante ne mooy Rufisque ak ay ñi nga xamante ne ñoom lay àndal ci ci liggéey boobu lee ñu wax ci ki nga xamante ne mooy général Moussa Fall nekk nag nit koo xamante ni fii la juddoo eh, ci Ngaye Mékhé moom nag eh, dañ ko nommé eh, ci alxames ji ñu weesu par décret présidentiel daal koy tàbbaleeg li nga xamante ne mooy haut commandant de la gendarmerie nationale waaye tey nekk directeur de justice militaire ñu def ko lekk ci décret numéro mille 2021 861 bu ñu waxee ci euh, li nga xamante ne mooy Moussa Fall ba pare dañuy jàll nag wax ci li nga xamante ne mooy accident ñu nemmeeku ci yoon wi la mu nekk toll ci 327 accident yoo nga xamante ne enregistré nañ ko ci région Kaffrine ci diggante atum 2014 jàpp 2020 loolee nag bu ñu xayma pourcentage mu toll ci 40 pour cent yoo nga xamante ne dañoo jugee ci département Koungheul ñooñu nag ñu ngi ko xamle rek ci benn réunion bu ñu doon amal doon ko waxtaanee ci lu soxal ci wàllum prévention. routière. ñu wax ci ki nga xamante ne mooy euh, capitaine Omar Touré moom nag àdduna lekk jëmale ginnaaw bi nga xamante ne njiitum réew mi da ko jëlee ci gendarmerie ba mu wax ni nit ku nekk rek am nga nga xamante ne sa la waaye moom daal mu ngi àddu rek di ñaanal di Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm loolee la xamle ñu ngi ko jëlee nag ci suñu ay naataango Vox Populi bi ñu ko wàccee ci alxamis ji leen ñu fàttali nag ni capitaine Touré moom la moo yoroon enquête bu affaire li nga xamante ne moo jëmale woon ci. Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne mooy Adji Sarr moom nag dañ ko rek radié ci gendarmerie nationale gannaaw rek wàllu bu contre honneur ak tamit li nga xamante ne mooy probité jëm ci ay devoirs généraux si ay militaires. kii di eh, leaderu Pastef bi lee moom tamit di Ousmane Sonko doon na jënam taskatu xibaar yi lekk ci àjjuma ji ñu weesu eh, xibaar boobee nag mu ngi ko joxe woon rek ci page Facebook doon xam ne rek moom patriote bi bu ñu sukkandikoo ci moom mu ni dafa bëggoon amal ab jënam taskatu xibaar rek eh, waxtaanee lépp loo xamante ne rek dafa soxal ci ay xibaar fii ci suñu réew. ñu wax ci leneen tamit euh, mu nekk euh, benn mbir mu tiis a tiis xewee rek ci talaata ji ñu weesu fële ca Medina Bandia ci commune Sindia moom nag dafa daje woon ak ab yoonam euh, ci benn oto ba nga xamante ni dafa yeboon rek ay bëy moom nag mu tudd Abu Ba nekk rek gannaaw nag bi mu jaalee woon yaakaaroon ni daal borom oto yooye ay juróom la indi noonee daal mbir ma tiisee ci moom ndaxte noonu rek la ko sàcc yooyu daal koy faatee. ñu wax ci li nga xamante ne euh, mooy leneen ci ci li nga xamante ne mooy Sénégal moom nag bi yoon lay jëkk a dooral di defar jëfandikoo li nga xamante ne mooy wàllu courant di ko defaree si gaz euh, naturel liquéfié loolee nag Sénégal mu ci gën a xam-xamam mu ci gën a màcc ci wàllum génération jëmale ko ci électricité euh, bu ñu sukkandikoo di ko def gaz naturel bu ñu liquéfié ci GNL gannaaw nag bi ñu ko defee ci àllarba ji ñu weesu installé loolee nga xamante ne mooy gaz. Strasbourg bi unité de stockage bi ak réservification bu Singapour loolee nag euh, mu ngi exploité fii ci Sénégal ndaxte ñi ko ŋànk mooy benn co-entreprise jëmale ko ci benn compagnie maritime mbokk yi fii la ñu yemal yéen ci xibaar yi bu ngeen taaxeeloo mu ñëwal yéen ci fàttali ci li fës ci bopp xibaar yi fii ci li nga xamante ni moo soxal ay yëngu-yëngu yu méttee métti yi fële ci université bu Thiès ba tax na ay bal sax yëkkati nañ ko daal koy def ci ñi nga xamante ne moom tiire ci ñi nga xamante ne ñooy étudiants yi ñaari fanu intégration nag bi nga xamante ne waa simis ñoo ko doon organisé fële ci université bu Saint-Louis ñaar fukki fan ak ñett si weeru juin atum 2021 ñoom nag dañoo fas yéene woon Macky Sall ni ko yow daal askan bi soxlaatuñ la benn yoon loolee nag Ousmane Sonko moo àddu ci cadre yooyu léegi film soxal li nga xamante ni mooy xeex désertification ak seres Sénégal moom fixé na rek ci ay objectif am ci wàllum suuf nag fële ca Touba Mbacké ki nga xamante ne mooy chef village yu Ndangali moom moom yoon ko teg loxo ba tax na sax ay jegeñaaleem daal ñuy wax ne daal di koy bàyyi ñu wax ci li nga xamante ne mooy wàllum accident de la route 327 accident nag la ñu jot a enregistré ci atum 2014 jàpp 2020 fële ca na ci euh, wàllum mairie Rufisque nag Mango Diazaka moom lancé na rek euh, mouvement tey it mu officialisé li nga xamante ne mooy candidature euh, ci wàllum gendarmerie ki nga xamante ne nag euh, dañ ko fa jëlee wàcce ko fa muy njiitu réew bu Sénégal mu ñu gën koo xam ci capitaine Touré moom nag àdduna rek jëmale ci mbir moom lee euh, fële ca Mbour Sindia nag euh, kookee di benn sàmmkat buy wuyoo ci turu moom nag dañ ko faat lekk faatee ko li nga xamante ne mooy jaas yi ñu ko def nag lenn lu dul lekk ay sàcc mbokk yi fi lañ yem ci xibaar yi ki leen ko doon jottali di seen mbokk seen xarit Mountou Ka leen sant bu baax di leen gërëm di leen wax ngeen di teewlu euh, seen chaîne Teuf Connection TV ñu ngi di jox di euh, ñu ngi leen di jox daje dimanche di leen sant baax di leen